li wër te daal mooy euh, xale yii ma gis ñoom duñ bokk ci ñi nekk internet di saaga li wër te mooy mooy xale yii ma gis kenn mënu leen woo ci taal yëfu jàmbur kenn mënu leen woo ci yàq alalu jàmbur kenn mënu leen woo ci loo xam ne vraiment dina euh, santaanul loolu nag lu muy wane na mooy enseignement ak éducation bokkul euh, te ñii ma gis nii rek dañ leen a dal leen a yar dañ leen a yar jàngal na leen alxuraan waaye xale yi bu ñuy tari alxuraan sax du ñu mën a duñ siggi sax xool la nga gis si ñoom teey gi ñuy teey eh, gi nga xam ne yàlla si alxuraan bi buy buy tagg ibaadu rahman ñi muy tudd ibaadu rahman loolu la leen wax ne bu ñuy dëgg suuf sax maanaam parce que suuf si donc loolu ñoom xale yi ma gis nii tey maanaam xeetu yar boobu moom lañ am eh, loolu nag lu muy wane rek mooy ne dañ fonk diine ji dañ fonk alxuraanul karim wax naa léegi sama discours ne ñun ñii nekk ay intellectuels yu bëri fii si dëkk bi ay professeur d'université ay avocat ay magistrat ay comptable lu nekk bu buñ dindee si ñun li alxuraan contribuer si sunu jàng dara dootu fa des parce que bi alxuraan jiitee si sunu xol yi daf ñoo defar bi jiitoo si sunu xol yi dafa def ab yar si ñun dafa am looy jomb dafa am looy bëgg dafa am nooy taxawee dafa am loo xam ne da ngay koy xam ne say wëyjur si loolu la lay xaare euh, parce que tamit yàlla moo moo ñu ko sant si te si alxuraan bi la nekk wa bil ni ihsaana donc loolu tamit yëpp dañ koy jàng si alxuraan bi moo tax ñu ñu war a fonk alxuraan ji daal fonk jàngam alxuraan bi loolu buñ ko amoon kon euh, phénomène yi ngay wax nii te mu nekk léegi si réseaux sociaux yi kenn dootu ko gis saagaate mu métti mi maanaam manipulation bi sosalante bu metti bi euh, xeex violence verbale violence physique nañu dem toji nañu yàq nañu taali loolu kenn dootu ko gis ci réseaux sociaux yi benn solution rek la am mooy alxuraanul karim bi ñu fonk ko te jël fexe ba muy jiitu ci euh, xolu nit ñi dañuy nettali ne Maodo moom El Hadj Malick bi tubaab yi di xëccoo pour jël ay njabootam pour di leen yóbbu sa guerre ba bi nekk lan moo tax doo ci opposé wu daf ne ñi jiitu naa leen ci ci seen xol yi ba pare donc fu ñu mën a nekk si àdduna bi tamit. maanaam euh, li ma jiitu si seen xol yi li alxuraan jiitu seen xol yi li diina jiitu seen xol yi dina tax na duñ mas a duñ mas a réer te loolu man am naa si exemple bu leer nañ boo demee Mantes-la-Jolie ña fa nekk njabootu Thierno Mansour Baro la muy nekk tubaab la France la muy nekk sa xolu Paris yëpp boo leen gisee da ngay xam ne ñii kat Thierno Mansour Baro jiitu na si seen xol yi ba pare te tubaab ak leneen lu mën a nekk mënatul changer si seen comportement dara loolu yëpp dafay wane rek ne jàngam alxuraan daal am na solo waaw loolu moom euh, ñu ngi si dañ convoqué euh, conseil municipal bi parce que vingt pour cent yi mooy minimum daf ne buñ kenn yées vingt pour cent te ñun nag bëgg nañ bu ñuy def évaluation euh, commune Mbour bokk si commune yi nga xam ne ñooy gën a respecté directive bu président boobu te ñoom ñooy gën a jox maanaam doyo ak fulla ak fayda daara yi donc lépp lu ñu mën daal incha allah dinañ ko def pour directeur président bi nga xam ne dafa fonk daara dafa fonk diine dafa fonk kilifa diine yi dafa fonk kër diine yi ku nekk gis na programme vie yi ku nekk gis na mosquée yi nga xam ne mu ngi koy defar di ko inauguré ak taar bu mu siy def ak liggéey bi wër ba muy wër ak yu bëri yu nga xam ne mu ngi koy def ku nekk gis na ne ENAM section arabe ba ubbiwaat na ko pour que ñuy jàng alxuraan ak arabe mën a dugg ENAM comme ñëpp nekk ay diplomate ku nekk xam ne ni bac arabe bi. moom ak bac français bi ñoo bokk léegi même dayoo ci wàllu éducation nationale donc yooyu yëpp nag bu ko defee boole si nag sant ñu ñun maire yi nañ jël au moins vingt pour cent si fonds de dotation yi def ko si daara yi dafay wane ne ñun Sénégal am nañ chance am président de la république bu bugg a diine bu fonk diine bu fonk l'islam bu fonk daara yi bu fonk sëriñ daara yi bu fonk ndongo yi waaye surtout nag bu fonk alxuraanul karim ñu koy ñaanal si barke alxuraanul karim boobu yàlla na ko yàlla may jàmm aleyka salaam ba mu àggali mbébétam yëpp si Sénégal Sénégal nekk dëkk yi bu gën a neex dëkk si si at waaw dina ñëw Mbour nag euh, dina ñëw Mbour parce que jot nañ programme définitif bi incha allah samedi onze président Macky Sall bu jigee ngeen jaar Malicounda si centrale euh, électrique bi dina ñëw Mbour pour visiter réalisation yi ñu def si wàllu Promoville te xam naa ne tali bi nga xam ne moo jëm si hôpital Thierno Mansour Baro bi xam naa ne tali boobu nga xam ne waaw mbuur yëpp am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax si sera l'occasion pour que waa Mbour génne wax ko jërëjëf parce que tali boobu kat problème yu bëree bëree bëri la rek